waxtu wu ne di la sant waxtu wu ne di la jaamu jaamu gu sell te rafet te dëppoog maanaam sa jëmm ji kon loolu ci gàttal mooy dëggi-dëggi ak sant bëggoon na maa taxaw ci xéewal yi waaye xam naa loolu bisimilah ah da ngay defar <laughs> bisimilah waaw ah, bëgg waa xéewal yi waaye xam naa loolu moom du du du maanaam mën nañoo taxaw ci mën nañoo yem ci loolu yaakaar naa ci wàllu cant xéewal nag murit bu ne xam nga murit mooy koo xam ni yàlla képp mooy yitteem loolu la Sëñ murit da ngay doonub jullit ba noppi doog a ñëw nekk murit dangay ngay doonub jullit di jullee ka woor aka natt asaka yooyu loolu mooy muslim nga duggagoo fi ne ci mu'min qaalat il arabu amanna qul lam tuuminu walakin qulu aslam na mooy muslim nga waaye doonagoo mu'min mooy sa xol gëmagul dëgg dëkki gëm boo demee ba sa xol nag dëgg dëgg dëggi ngëm mu'min nga waaye doona goo muhsin boo doonee mu'min nag ginnaaw ba nag fa la murit tàmbalee mooy nga sóobu nag dox wuti maqaamul ihsaan an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak kon murit maanaam du lu woyof du lu tuuti du lu lu am maanaam fi ne muslim bi nga xam ne tey mooy xale bi nga xam ne daa juddu baayam mag ndeyam di jullit mu fekk ñuy julli muy julli ñuy woor muy woor waaye yooyu daanaka aggul ci xol bi kooku fi ne mag ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla nekk ci jàkka ji waxtu nañu nekk ci dañuy yàq ne moom day yàq seen dañuy yàq seen waxtu maanaam ñoom duñ leen mën a xam la ñuy def mu'min bi itam noonu maanaam lii murid bii defit mënu ko mënu koo xam nga ak seegu fi noonu la demee léegi nag murit nag fa mu tàmbalee mooy sa yitte jëpp di jëmmi suñ borom moom ngay dàkk fi ne aljana sax du la tax di jaamu wala ragal sawara loolee maam Cheikh Ibrahima Fall mu baax mu waxoon mooy doxinu saa dex mooy bëgg àjjana taxumaa ñëw fi sëñ bi ragal sawara it dégg nga taxuma fee ñëw man jëmmi sëñ bi rek laa bëgg te bëgg gim bëgg sëñ bi daa dugg ci bëgg gi bëgg yàlla maanaam yàlla lay wut kon murid foofa lay ne ndax àjjana bu fekkee moo la tax di jaamu tey bu suñu borom ne àjjana amatul bàyyi naa ko xam nga dootoo jaamati yow te maanaam nun ay jaam lañ yoo xam ne ñoo war a jaamu yàlla ngir ne mooy yàlla yàlla kenn du ko jaamu par intérêt moo tax ak murid di lu kawe kawe murid nag kon xéewal yi muy njëkk gis mooy fi mu ne da ngay gis ne yàlla borom yërmande la loolu lu mat a bàyyi xel la boo gisee murid yi njëkk ya ak suufiyanke yi rek dañuy bari yërmande ndax yërmande suñu borom ji dañuy jan lool wuute gaa ñi nga xam ne ñaari baat ñett yow ñu génne la ci diina ji ta maanaam jekk ci faat la rendi la def nit ñi ay camion man di leen sol ci camion dema leen sawar xam nga ñooñu yërmande seen yërmande bariwut maanaam murit nag mooy koo xam day gis ne suñu borom wa rahmati wasiat kulla shay la suñu borom wax suñu borom yërmandeem da amutub dayoo akub àpp na jëmmam ja mel ci màggaay noonu la yërmaandeem toll kataba ala nafsihi rahma iblis ci moom fi ne am na ci kenn ci nit yàlla yi dama xamul ku mu doon abul yasil bastaani wala kenn neen dama ko mas a gis iblis xamal ko ne ko ah man de maa ngi yaakaar yërmaande yàlla <laughs> mun ne ko yow moom yërmaande yàlla noo ko yaakaar yow iblis mu bon mi nga xam nu la dem nga ko <laughs> ah ne ko suñ borom moo wax ne wa rahmati wasiat kulla sa sama yërmaande xajoo na lépp te man shay'un ci la bokk <laughs> shay mooy mooy lépp rek dara Cheikh Abou Cheikh Abou Yazid ne ko aay bi yëmul foofu dafa wax ne fa sa li lilladina yattaquuna ñi may jox yërmaande ji mooy ñi ragal yàlla iblis ne ko yow seetee googu ngay seetee sa sa sa jikko la ak sa melo waaye yàlla <laughs> yàlla foofu la mu wax mooy ñii dinaa leen jox ci yërmaande ji waaye waxul kum ko fi xañ fi ne <laughs> ginnaaw xañagu ko kenn nag man maa ngi ci yaakaar <laughs> xam nga suñ boroom moom moom yërmaandeem jooju maanaam sëñ bi loolu yi xam nga su yónente bi xaswatu Uhud daa gis jigéen joo xam ne doon wër doomam di ko wër ba jël ko taf ko ci boppam nee na yonente bi daat ne ndax ndaw sii doom jeeg ni mu ko wëree ci biir jaxasoo bii ba taf ko ci boppam ndax dara jël doom ji di ko sànni ci xal ab taal ñu ne ko kii kay xalaatu ko mu ne leen lallaahu arxamu bi ibaadihi min haadihi bi waladiha yàlla ni mu yërëme jaam ñi moo ndaw ni ndaw si moo raw ni ndaw si yërëme doomam ji xam nga yow sa yaayi bopp sa ndey bu ñu la woon moo yore mbir yi nga xam ne moom euh, ëllëg moo koy lijjanti xam nga kooko yow soo da ngay da sant rek loo am loo xalaat dara ëllëg te ka nga fay fekk moo nam la yërëme moo raw ni la sa ndey ji yërëme seetal yërëmaane jooju rek murit bi nag yërmaane jooju lay lay teg bëtam gis ne itam suñu borom jaam ñii ngay gis ni li tax ñoom duñ woyofal kenn mooy dañu xam ne jaam ñi njabootu suñu borom lañ te suñu borom wax na ne wala qad karram naa bani aadama dafa teral doomu aadama yemul ci loolu mboolem këwnu bépp mu def ko muy liggéeyal doomu aadama saxara lakum maa fi samawaati wa maa fi lardi wa saxara lakum alfulka li tajriya fi lbaxri bi amrihi wa saxara lakum al anhaara wa saxara lakum alchamsa walqamara daa'ibayni وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها beeg fi ne loolu sax mënoon nañ ci dugg waaye day gën a gudd fi ne jant bii nii bu xëyul suba fay juróom-ñetti minute lañ ciy teg suuf si jaxasoo moom ndax jant bi mën ko ñàkk xam ngeen ne gàncax gi daa soxla maanaam jant bi dégg nga ngir mën a màgg jur gii lekk ci gàncax gi noonu nu di ci jëfandikoo di jëfandiku ci jur gi <laughs> fi ne mboolem li ñuy jëfandikoo lépp dama am sunu waajur boo xam ne wax ne amul kenn ci kaw suuf kuy jëfandikoo kuy dunde ay pikiir mbaa mbaa ay ay ay comprimé maanaam nee na ñëpp maanaam lii ñuy bay ci kaw suuf ak jur gii nii ak seeni soow rek lu lekk goo mën a gis ci loolu la bay ko jur gi bu fi maanaam gàncax gi bu fi jógee noonu lu jóge fi waxuma laak nag sedd bi nga xam ne moom suuf si way moom bu jant bi demee nga xool géej gi ci misaal géej gi tey bu xëyoon suba fer ngiis moom baa jafe-jafe bu rëy daal di am ndax niir yi moom doo leen séenate xam nga ndax géej gi xam nga jant bi da ci tàmpe mu doon saxaar dem ca niir doon ndox nekk fa mooy li muy wër a ko waraat léeg mu sotti ko fen xew xam nga loolu xéewalu taw googu yooyu yëpp na daal taxaw nag bu ko dee tàngoor ñëw fi beneen jafe-jafe indi fi boo xam ne kenn mënu ko lijjanti maanaam lenn lu mën a ñàkk ci ci ci ci ci kaw suuf ak ni ko suñu borom binde ak nii mu demee boobu ba léegi ba ordination ba léegi nga xam ne soppi ko wut loolu dara gën a koy xéewal bukkut ak nag wetuk bëtin gi nga xam ne mooy maanaam nun danoo wutale ak yeneen ju mala yi nga gis ci kaw suuf ruux gi mu def ci doomu aadama bukkut ak ruux yeneen mbindeef yi ruux googu da ko askan ci boppam wax ne wa nafaxtu fiihi min ruuxi moo tax kon xéewal yooyu noonu la demee ñaareel ba itam suñu borom xamal nu ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi bi suñu borom xamal na ko yow du ma la bàyyi mukk Seydina Daawuda alayhi salaam dégg naa suñu borom da ko ma sax ne ko law alima almudbiruuna anni kayfa intidaari lahum wa rifqi bihim wa shawqi ila tarki maasihim lamaatu shawqan ilaya wa taqattaat awsaaluhum min mahabbati nee na gaa ñi ma wan ginnaaw féetéerlu ñooñu bu ñu xamoon xaar gi ma leen di xaar ak yërmaane ji ma leen ëppal ëmbal ak ñeewante gi ma leen ëmbal ak cofeel gi ma leen ëmbal bu ñu ko xamoon danañ rus ba faatu sax ngir kersa te maa ngi leen di xaar rek saa yu ñu dëppee ma nangul leen yonente bi nee na boo toogee nekk suñu boroom maa ngi lay jéggulu nee na dana ci bég mbég moo xam ne mooy ëpp waa ji nga xam ne dafa yoroon ak lekkam ak naanam def ko ci gileem nekk ca diggu màndig ma wàcc di faj aajo rek gileem gi daw mu wër wër wër mënta fexe ba gisati gileem gi mu wër ko ne fi ne mënta dox ba àgg ci fenn moom li muy def mooy toog faatu mu tëdd fi bërëb ne naa naa tëdd fi bu ma faatoo muy sama bàmmeel nee na jekkee ne xënat yem ci gileem gi ak lekk geeg naan gi mu bëgg a bëgg a bëgg ba ne suñu borom yow sama jaam bi man sa borom maa ngi lay sant <laughs> xam nga rasulullah ne axtaa min shiddatil farax mbégte mopp nee na suñu borom nag mooy gën a bég saa yoo ñëwee yoo ko jéggal ma xam nga yow yaa ngi tooñ ñëw <laughs> ko jéggal ma murit nag foofu lay ne ci gis suñu boroom janloog moom nga xam ne xolam loolee lay janloon man na jëflante nag ak nit ñi ci zahir naa nga waaye xolam moom du teggiku bëtam du teggiku fa fa fa jëmm joojee nga xam ne fi la lépp bàyyi ko ànd gi nga ànd ak sëñ Tuubaa rek moo la ko tawfeex xam nga mën ngaa judd di ma ko waxee di sappone sappone sax jàmbar lañ waaye mën ngaa judd juddoo feneen doo xam sax sëñ Tuubaa nga loolu moo tax ànd gi nga ànd ak sëñ Tuubaa nii loolu yàlla la ko defal waajur yi nga am moo la ko tànnal bërëb bi nga juddoo Sénégal waxtaan naa ko daaw réew mu am solo la loo xam duñ ko bàyyi duñ ko bàyyi xel suñu borom sëñ Tuubaa da ko daa tànnal sëriñ bi bërëb bi mu feeñe tànnal ko waajur yi mu feeñee tànnal ko dégg nga bis bi sax bi mu feeñ ak jamono ji mu feeñ loolu nag bunt yu am solo la ci nga xam nun xéewal gi na am ay nit a ngi fii ci réew mi te xamuñu dara ci Sëñ Tuubaa am ñu sànku nag te alku nag ba di wax sax ab safaan ci sëñ bi xamu ñooñu amuñu tawfeex sëñ Modou Racine Ndiaye daana wax baat bu am solo xam naa ko laa jeexale foofu mooy sëñ bi moom daa tànn ak njabootam te loolu yow ma alastu la woon nee na nee na suñu borom da ko xamal ne boobee ruux yi xam nga yàgg nañ fi suñu borom da leen bind dajal leen ci aalam boo xam ne moom la gaa yi tuddee aalamul jabarut wax ak ñoom alastu bi rabbikum ñu tontu ñoom ruux yi nun ñëpp nu tontu am ñu daal di gëm foofee am ñoo xam ne dañ leen a forcé ñu doog a gëm moo tax boo ñëwee fii ci àdduna bi ki gëmoon boobee te kenn forcé wu ko day gaaw a fàttaliku xam nga diine yii yëpp du dara lu may bëgg a fàttali ruux gi wa dakkir ngir mu fàttali ko loolee nga siñente woon ak suñu borom képp mooy diine mooy diine gi ñuy jëf yëpp loolu lay loolu jariñ boo fàttalikoo nag delluwaat nga nag fa fa ca cosaan la Sëñ Tuubaa nag nee na foofu la ko suñu borom xamal ne ko si sunu boroom daa bëgg yonante bi moom sallallahu alayhi wa sallam bëgg goo mu ko ci suuf ne am lu may laaj waaye nag bu ma laajee rek gaawal tontu boo tontoo ki njëkk a ko ko lay ko lay jiital nee na waaye Sëñ Tuubaa itam eh, suñ yónnante bi bëgg bëgg Sëñ moo tax mu déy ko moom suuf ne ko yow tontoo rek na nga gaaw <laughs> gaaw tax nee na yónnante bi bu moo njëkk tontu suñu borom jiital ko defal ko lam ko defal lépp Sëñ itam moom it mu daal di tontu. nee bi mu tontoo ba noppi nag ba ñëpp tontu ñi gëm ñi nga xam ne leen a forcé sunu borom wax yonent bi ne ko ginnaaw yaa njëkk a nangu tànnal sa ño sa ñooñ sa waa kër ak sa njaboot ak ñi ngay àndal nee na mu tànn tànn ba noppi am bi yow yi tànn ba noppi sëñ bi nee na ñu wax ko ne ko yow it tànnal sa waa kër nee na ñëpp jàpp ne damay dem fa kenn tànnagul ma tànn fa ne ma dugg ci biir li rasulullahi lay sa wasallam tànn ma tànn ci yéen nga tànn ci ñoom xam nga bu tànnoon cee ñi nga xam ne kenn tànnagu den ab yonante lay doon xam nga lii nag wax ju leer la te ci noonu loo xam ne amut amut jafe-jafe ci noonu <laughs> waaw léegi nag moo tax dara wax ne yéen xiyaarul min xiyaar ngeen ay tànneef ngeen ci biir yi tànneef ndax lay daa tànn mu tànnaat ci biir rasulullahi sallallahu alayhi wasallam tànn moo tax dangay gis koo xam ni day nekk fee suñu biir juddoo biir Tuubaa te bokkul ci ci mbir mi xëy suba rek nga gis mu dellu feneen kenn du xam ci lu mu nekk nga gis ko xam ne feneen lay juddoo mbaa mu nekk fa nga gis xëy suba nga gis ko fii fan yi ndeysaan dama am mbokkum tale bi mbokk mbokk moo xam ne sax moom ab Gambie la xale bu góor la nii boo xam ni <laughs> dèjà damaa jekk ci bëccëg rek mu ñëw ne ma ne Gambie laa xëyee diggul sax wolof bu baax nii ne ma dafa diglu waxtaan wu ma defoon ci Sëñ Tuubaa yooyu yàlla def nag bi bëgg Sëñ Tuubaa goo xam ne kii man ne moom bi mu ñëwee toog nañu lu ëpp waxtu xam ne mën noo communiquer muy jooy jooy yoo xam ne sëñ bi kii man la <laughs> dama mën sëñ Tuubaa dama ko bëgg rek te yàlla tax ma laaj ko moom xaalis xaalis Sénégal bi keroog la ma sa ñëw Sénégal dana xaalis Sénégal bi sax xam ko ma ne ko mbaa gars duñ la nax ci ci yoon wi mu ne buñ ma naxeet baax na <laughs> nga ne bañ noppee daa daal di teguwaat ci yoon wi wuti gàmmi wuti wuti wuti wuti moo tax maanaam day am xol yoo xam ne foo mën a ne ñooñu ay murid lañ ñu bokkoon ci njabootu sëñ Tuubaa gi faw ñu ñëw euh, sëñ sëñ Saliou maa ngi wax nag yeneen léegi nag kon <laughs> kon daal naa naa naa taxaw foofu jeexal rek nag sëñ Tuubaa nag moom loolu moom beneen waxtaan la xam naa sëñ sëñ bi <laughs> mooy mooy jëm eh, eh, gën a gudd léegi dana dugg ci laaj yi eh, maanaam sëñ nag moom diggam ak cant moom moom moom diggante bu am solo la te mooy tukkeem bii nii day tukki bu rëy te màgg suñu borom teg ko ci natt loo xam ni monsieur fu ko teg daanaka jëmmi doomu xaw xawuta xaj sim xel sëñ bi laa lay wax man suñu tubaab li mu jànkonte wax dëgg yàlla bu gee suñu classe gi nga xam ne noonu dañuy gëstu sëñ tubaab man boo juddoo ba maa ngi ci jéem a gëstu ak kii donte xaw ma lu bari ci sëñ bi waaye waaye faw nga yëm ci sëñ tubaab ci li mu dékku ak li mu mën a dékku ak li ko yàlla jaral loolu lu rëy rëy tukki bii sëñ Abdou Lahad dara wax ne bis bi mu fi jógee di tukki keroog la nattu yi tàmbali te at mu ne bu fekkoon démb at mai fukk lañ ko teg bu déwénee dañ koy yokk ful ko ba muy ñaar fukk bu déwén jegee ñu fulaat ko ba muy fanweer noonu la suñu borom di doon jëflanteeg moom ba nattu yi jeex suñu borom tàmbali di ko fay waaye moom it noonu la ko doon fayee xam nga suñu borom moom day buur bu màgg boo xam ne bu fayee mu ëpp waaye bu fayoo it mu ëpp waaw yàlla dogal nee na muy jëfalanteek moom ren jii lu mu ko jox bu dewenee da koy ful joxaat ko loolee lu lu na toll bu déwén jegee mu fulaat lool lépp joxaat ko ko bi mu agsee ci njëréem nag daana ko sant cantuk boppam bi mu agsee njëréem nag la wax ne man de li ma sun borom faye ji sama tukki bii kawe na sama njort ba tax na maa ngi sàkku képp koo xam ne sama mbég sa mbéga bis bii bu agsee nga di ma ci sant la yàlla maanaam bis boo xam ne yàlla rek lañ ci sant loolu yaa xawma ko ci kaw suuf feneen bisub sant yàlla loolu ci sëriñ bi lañ ko njëkk a xame may yi ko suñu borom may nag ca tukki ba loolu moom moom weneen waxtaan lay doon ndax moom suñu borom moom li ko Sëriñ Tuubaa wax dëgg yàlla li mu li ko yàlla jaral wax dëgg yàlla te daa toogul nii rek yàlla jekk may ko daa jëf lépp lu jëf di may rek fi ne tey moom yàlloo na ko da jëf jeexal léppam ci suñ borom desulu ca dara daana wax ne bu ñu demee yomal xiyaam de foofee la ñuy ne suñ borom ba ma koy jaamoo maanaam jaamu gi day waruma ci waaye moom bi may fay naxuma te suñu borom daa gëmut ne la lépp lu waay def it di nga ko gis moo tax nag xéewal yooyu nag da koo njëkk a tàmbalee sant fi ne boo duggee ci xaside yi xeetu jant gu ne da nga koy da koy gis Sëñ Tuubaa mooy santkat bi gën a màgg moom ci santkat yi léeg-léeg nga gis xeeti santin yoo xam ne day wax ne mboolem ko mas sant cant googee mu sant lu toll ne cant googee maa ngi koy sant yàlla <laughs> ashkuruhu shukra jamii shakirin wali siwa naxwiya saaqal kaafirin shakartuhu shukra jamii shakirin bil qalbi taarika li naafirin sukuru baat boobu la jëfandikoo léeg-léeg mu jëfandikoo baatu xamd ahmaduhu xamda jamii al xummadi ala nabiyi al ahmaduhu xamda jamii al xaamidin siwaaya saaqa durra al xamidtu xamda al xaamidin bil qalbi xaaliqa al mawlaana nga xam ne mboolem cantu gaa yi jiitoon yëpp dañu gis mu sant ko léeg-léeg mu waxidoon yi lay sant ashkuruhu shukra alladina waxadu wa abadu wa axlasu musrasadu ashkuruhu shukra alladina amanu wa aminu min alchaqa wa amanu mooy cantu ñi gëm yàlla nu siinu cant doy rek ak ak la bari bari kenn ku ne sa sa cant lam lu ne toll maa ngi koy sant suñu borom tabaraka taala léeg-léeg mu dugg ci santul mu santu ñi bëgg yàlla ashkuruhu shukra al muhibbina maa wa binnabi liya muna munaaye jamaa ashkuruhu shukra muhibbin lam yara qattu siwaahu wa siwaahu lan yura nga xam ne cantu ki bëgg yàlla nga xam ne gisut lu ma yàlla nee na cant googu mboolem ñi mel noonu seenu cant maa ngi sant cant gu toll noonu léeg mu sant cantu waasilul mooy ñi nga xam ne dañu àgg ci ca suñu borom dëgg-dëgg àgg ashkuruhu dëhra shukural waasilin al aarifina bil hudal muwaasilin ashkuruhu shukra alladina wasalu wa li yaqulu kulla ma uxasilu ñi àgg ci yàlla dëgg-dëgg àgg ak ñu mën a toll seen xeeti cant yëpp maa ngi koy sant suñu borom léeg-léeg sukurul aarifiina lay sant ashkuruhu dëhra sukural aarifiin ashaaribiina lil utaasi al gaarifiin nawaytu sukurahu sukura man araf bi rabbihi wa min fuyuudihi garaf cantug ñi xam yàlla dëgg dëgg xam léeg-léeg ñi nga xam ne nag mooy mushaahidoon yi ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo jàlloog jëmmi suñu borom ji te seen bët du xef du raf ci janloog jëmmi sunu borom ci tabaaraka taala nga xam ne gis ñu leneen jëpp ñu ne sax leneen am na ashkuruhu walam lam yazal dayyaana shukra alladina shahadu ayaana léeg cantum nag ñi naan ba màndi ci ci ci ci ci ci ci leeri suñu borom yi la ak leeri turi suñu borom yi ak géeji suñu borom yi ashkuruhu shukra alladina sharibu min azbihi wa lil jinaani qurribu léeg-léeg cant gi da koy wutal ab lim shakartu rabbi adad al araadi maa samaawaati ma al mboolem suuf si niñ toll ak xeeti suuf yi am yëpp lu di toll ci cant maa ngi koy sant suñu borom asamaan yi itam noonu mboolem xeeti asamaan yi am yëpp ak lu di tollu mboolem xeeti araad yi itam yi nga xam ne moo taq ci jëmm yi ashkuruhu mil assamaa wal ardi suuf seeg asamaan sax ñu duy ko ba mu fees ci cant maa ngi koy maa ngi cant cant ko dool noonu di ko jox suñu borom tabaaraka ko taala lillahi hamdi kulla shahrin wa weer wu ne itam ak at mu ne itam maa ngi koy duy ba mu fees dell ak cant di ko jox suñu borom tabaaraka wa taala chakartuhu bi adadil ajraami wa adadil araadi bi ixtiraami mboolem jëmm ju ne léng rek ak fu mu ko mën a doone ci kawnu bi maanaam jëmm jooju ak na mu toll ci cant maa ngi koy def cant ku toll noonu di ko jox suñu borom xam nga loolu <laughs> ci bërëb yëpp itam chakartuhu inda dawil fu mu nekk rek sant la ashkuruhu bil xarakaati wa sukuun ba àgg nag ci wax ne kulliyati shakiratun lillahi maanaam sama lépp daa maase di sant suñu borom tabaaraka wa taala foofee nag cant yooyu yëpp mu sant ko te loolu nag tëxul nag mu jot dëgg dëgg cant gi mu bëgg moo tax mu ne képp koo xam ne sama mbég sa mbéga maa ngi lay maa ngi sàkku ci yow dégg bis bii buñ ci àggatee nga di ma santale suñu borom ko wa la nee nag képp koo xam ne yaa ngi ma ciy santale suñu borom buñ demee yowmal xiyaam day li ma suñu borom fay ci tunk bi tukki bi du la ump xam nga loolu lu am solo la nun demoon ca tukki ba demoon fenn <laughs> maanaam te man maa loolu ban noo ump ak lu nun ca mos rek moom lu mu toll rek moom baax na xam nga <laughs> mi ko bu ko dee kon loolu moo indi bisu màggal Tuuba mën nañu taxaw foofu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ ngi sant lool wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo lool lool lool te itam mboolem li nu doon séentu ci waxtaan wi am nañ ci lu ko wees nu njort ñu ngi naan sunu borom gën laa sàmm te dëgëral la bu baax a baax ci barke sëriñ Tuubaa di sant lool wax dëgg yàlla xam naa dañuy dugg ci biir question yi rek waaye balaa loolu ñu def résumé bu ndaw rek ci biir loolu muy mel ni lu nu mën a jukkee ci thème bi ko joxoon mooy lan mooy dëgg-dëgg sant yàlla liñ ci war a mën a jàpp rek mooy loolu mu wax ba mu xaajee sant yi ñetti xeeti xaaj lii dëgg-dëgg sant yàlla kon mooy santub xol kon cant googu mel na ni mooy l'essentiel bi nga xam ni moom lañ ko joxoon kon ñu ngi sant bu baax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 waaw laaj boobu laaj bu am solo la loolu moom yàlla ak na yàlla ak sëriñ bi loolu moom gaa ñi dañ koy wax bu baax wax dëgg la léegi nag ndax loolu bokkaale la am déet loolu moom du bokkaale wax dëgg la ndax bu doon loolu alquran moom moo fees dell ak ci bokkaale dama yàlla jégal kon <laughs> ndax allahu wa rasuluhu moom bi seet gis ko ci alquran borom bi muy wax topp gi koy topp dafa wax ne wa atihu llaha wa nga loolu la wax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 wa man yaxruj min beytihi muhaajiran ila llaahi wa rasulihi foo looy def rek day mel ne yàlla nga koy def ak yónanteem nga xam ne yónante bi day mel ne da cee bokk booy gàddaay ci yàlla rek xam nga war a nga war a jëm waaye teewut mu ne ak yónante bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga bu ngeen bu leen bu ngeen demee ba xëccoo ci mbir atte ba neen ko dem laaj ko suñu borom waaye ak yónante bi xam loolu lépp day day day dem fa rudduuhu ilallaahi wa rasuli dégg ba ci joxe sax walaw annahum radu ma aatahum allahu wa rasuluhu wa qaalu xasbuna allahu sayuutina allahu min fadlihi wa rasuluhu wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduhu maanaam foofu xam nga suñu borom mooy joxe waaye yónente bi daa mel day joxe xam nga loolu xorom loolu nag am na leneen lu koy lijjanti loo xam ne dama bañ mu gën a gudd waaye xam nga dafa am lu ñu tuddee borom xam bi dañuy dañuy dañu koy tuddee nidaamu sababiya sababiya lu mat a xam la mooy ci dëgg-dëgg yàlla mooy def lépp waaye dafa am ay ay ay jaaruwaay ci alxuraan day gis suñ borom léeg-léeg mu wax nu ne yàlla mooy rey ku faatu dégg nga wax ne allahu yatawaffa lanfusa xiina mawtiha ku faatu rek yàlla la rey waaye léeg-léeg mu ne qul yatawaffakum malakul mawti malakul mawti moo leen faat nga xam day mel ne yàlla day faat malakul moo di faat te fekk ñaari faat amul ci xam nga kenn rek mooy faat foofu <laughs> ci dëgg-dëgg yàllaay def mbir mi waaye daam ay jaaruwaay yoo xam ne boo ko askanee ci jaaruwaay bii taxul nga génn ci diina ji ndax xam nga ne ci dëgg-dëgg kee kee koy def boo ko askanee ku makka itam génn génnoo ci diina ji am na lu gën a loolu lépp fi mu ne suñu borom wax na ci alxuraan ne allahu xaaliqu kulli shay lépp yàlla koy sàkk moo sàkk lépp mooy bind sayidna isa gis nañ ku ne anniya axluqu lakum baat bu réy ngi noonu donte bi isnihi nangam la ca teg waaye anniya axluqu lakum mooy ma ma sàkkal leen bindal leen créé te loolu suñu borom ko nett li te waxut ne jafe-jafe la fi mu ne léeg mu ne suñu borom mooy kilifa gi fa llahu huwal wali waaye léeg-léeg mu ne innama waliyukumullahu wa rasuluhu dugal ci yonente bi léeg mu ne yàlla rek mooy mooy rey mooy dundal inna la naxnu nuxyi wa numiitu waaye léeg nga gis mu ne man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fi l ardi fa ka annama qatala naasa jamian wa man axyaaha fa ka annama axya naasa jamian nga xam day mel ne am na ñeneen ñu ñuy rayee ka faat loolu nag nidaamu sabab yi moo koy tekki te mooy ca cosaan yàllaay def lépp waaye mbir mu ne da ko wutal ay jaaruwaay ki sabab mbir moomee boo ko askanee sabab bii te génnewula ci diine ji boo ko askanee borom sabab yi itam dégg nga génnewula ci maanaam loolu def nga tawxiid ju leer nañ nun murid yëpp na xam na ne sëñ bi moom jaamu yàlla la way na ni abdun rabbi bañ xamee loolu nag ci lañ mucc ci sirk sirk moom sëñ bi génnan ci bu yàgg yàgg yàgg te moom jegewunu sëñ Tuubaa wax ne lam ko waxee kufrun wala fusuuq du noonu la maanaam bay du ba na xam nga loo wax ne kufrun wala fusuuq yooyu moom yàlla musal nañ ci bu a baax ak ay ak kéefër wala sirk wala caay-caay yooyu yëpp moom nun mucc nañ ci bu yàgg yàgg <laughs> insha allahu taala donte nag murid léeg-léeg nga gis sama waa ji ku mel ne man koo xam na muy wax maanaam moom da ënt ak sagoom xam nga kooku desu ko topp wala koo xam ne mbég mbégte mopp mi yonte bi doon wax ci jaam bi moo ko dab farax al faraxu billahi taala mas naa jëlee waxtaan bu gudd ci jumaay Tuubaa maanaam loolu day am maanaam mbégte mu ëpp ci xol baat boo bëgg a wax xeeb ko lépp tuuti ci yow nga bëgg a wax lu rëy rëy doo am loo wax nga wax baat yoo xam ne moom moom ñëpp laa yow moom soo ay sawar nga jëm ndax <laughs> li nga wax loolu nag la yonte bi waxoon rek axtaa min shiddatil bi waaje ne suñu borom yow sama jaam bi man sa yàlla xam nga baat boobu dara gën ko rëy waaye yonte bi da wax ne li tax mu juum mooy mbégte mopp farax boobu nag day dal murid yi ak ñiy jàng ñiy def zikr bu bari loolu nag ku ko musul nga xam doo tudd yàlla wala yazkuruna allaha illa qalilan doo mën a xam lii ñuy wax <laughs> bismillah jërëjëf kii nee na gannaaw bi mu la ñaanalee gudd fan gu ànd ak wér day laaj ana wax ñi nga xam ni ñooy laaj dalilu màggalu Tuuba ci biir alxuraan ak sunna màggal Tuuba màggal Tuuba kay loolu màggal gan koy màggal loolu mooy dëgg dëgg sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam <laughs> ndax sant yàlla moom doo ma ne bokkul ci sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam li ma fi wax ci ay nusoos lépp ak i texte yi tegtale sant yàlla loolu ci dalilu màggal lay tamit mënoon nañ ko itam ci misaal yonente bi mas naa génn bis ci imaam muslim moo ko nettali fii ci saxiixu muslim nee na bi mu génnee <clears throat> gis gaa ñi toog di tudd yàlla def ab kuréel dégg nga xaraja ala xalqatin gaa yi dañoo kuréel comme ni ngeen kuréel xasida yi noonu lañ kuréel ne mu ne leen maa ajlasakum yéen lu leen tax kuréel nii ñu ne ko jalas naa nadau llaha wa nahmaduhu fii dañ fee kuréel dégg nga di sant yàlla ak di ko ñaan ci lim nu xéewale sa jëmm ji yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bika xéewalu sa jëmm ji ak diine jim nu jox moo tax nu toog fii di sant yàlla yonente bi ne leen sa ajlasakum illa dalik loolu rek moo leen fi tax a toog ñu ne ko waaw loolu de moo nu fi tax a toog sant yàlla daal ci sa jëmm jii munu xéewale ak diine ji nga xam ne moom la moom la gin gindi nee na yonte bi ne leen xam nga da leen a giñ loo ndax ndax ndax ci dëgg-dëgg loolu moo leen fi taxal giñ la ma da leen a giñ loo yonte bi teg leen leen man li tax ma leen di giñ loo du jéegéen dama leen di tuumaal waaye jibril damaa fekk fee ma ne xibaar ma ne sunu borom kat mi ngi yu baahi bikumul malaayika mi ngi puukare ci digg malayka ya di leen wax ne xool sama jaam ñi di leen di puukare puukare mooy mbég suñu borom daa bég ci yéen bay bay wax malayka yëpp leen yéen nag xool leen nag ñi jaam ñu mel nii xam ngeen ne ak gaa ñu mel nii loolu lañ def Touba dañ fa daje rek sant yàlla <laughs> ci xéewal yi muy xéewale sëñ Touba ak jëmmi sëñ Touba ji eh, jox yi gëm nu ko jox ak diine ju am solo ji nga xam ne moom la ñu jàngal muy diine ju tege ci yërmaande ak jàmm dëppoog la fa yónte bi bàyyi woon ëpp di yeesut loolu jar na sant sëñ bi loolu benn la ci tegtale ak lan maanaam lañ fay def suñ fa lu mbakke da wax ne mooy niñ koy màggale mooy jàng alxuraan tudd yàlla ci xeet tudd yëpp jàng xasiida te xasiida mooy dénga ñaan la ak istigfaar ak salaatu al nabi ak tagg yàlla ak tagg yónente bi ak ak ak sant ko lool lool loolu suñ fa leen ci lañ koy màggale ak lan ak jokku mbokk ak siyaare gaa yu baax ya ca kaw suuf ak ya ca biir suuf ak yi deme noonu lii nag lenn lu ci nit mën a mën a mën a mën a wedd ci diine amul xam nga loo ci wedd rek mën laa génn yow sa di ci diine ji loolu nag wutal ko bis mënu ko xaraamal yonente bi masjidu Quba daana def samedi bu ne mu dem fa julli fa ñaar rakka loolu ibnu xajar asqalaani ci fathul baari nee na maanaam wutal gi mu ko wutal bis mu bisu samedi te bu demee di fa def jëf ji loolu tegtale loolu maanaam jaamu yàlla mënees na ko wutal jamono ak bërëb ak ak waxtu am na yeneen tegtal yu bare bare bare bare yoo xam ne eh, yàlla bu mu nu gën guddal ci misaal yahuud yi xam nga yónente bi da leen a fekk mag madina al a war a ñu am bis boo xam ne dañ ko daa fonk di ko woor yónente bi laaj leen ñu ne ko bis bii ci la suñu borom labale woon firawna xett li Muusa ak ak ñoñam ñi di ci sant yàlla nag ci ci xéewal googee munu xéewale woon ca bis boobee yonente bi na leen fa ana xaqu bi Moussa minkum Moussa maa leen ci gën a yay yonente bi daa tàmbali di woor bis boobu fa saama saamahu wa amara bi siyaamihi loolu mi ngi ci Buxaari mu di ko woor digal ne ku ko mën ci jullit ñi dee ko def ndax nun noo leen gën a yay ci Moussa xam nga xéewal ga ci benn jamono la amoon te du at mu ne mu am te cant gii ci yonente bi sant itam at mu ne la koy def te bis yi mu koy def mën naa wuuteeg bis mu amee woon ak jamono jooja loolu mooy xéewal bu amee ci jamono itam mooy yee Sëñ Tuubaa suñu borom xéewale sëñ bi mën nañ koy sant at mu ne ci wutal ko jamono loolu ak yeneen yi demee noonu yëpp mënees na cee am na yeneen i jërëjëf kii nee na moo am diggante alhamdu ak wa shukru nee na ndax day gis ci mbindum Sëriñ Tuubaa lu bari ñaari mu boole. ñaari baat yi moom wuute nañ tuuti xamdu ci misaal su ko wax doomu aadama ci li ëpp shukru moom des na ko wax doomu aadama des na ko wax dégg nga maanaam sunu borom. sukkur li ci ëpp ci xéewal yi la jëm xamdu nag moo gën a xóot xamdu moom la suñu boroom tàmbalee alquran xam nga alhamdu lillahi rabbil alamina moo gën a xóot loolu yi rek moo xaw wute bi sëñ bi gaa ñu dolli ci bismillah kii nee na day laaj ba xam ci islaam ngoro ak jigéen am na durée bu ko islaam wutal ngoro de amu amul durée waaye nag lu mu gën a gaaw de moo ci gën ndax <laughs> maanaam lii lii gone yi xewal nga wax ne moom ànd bu kenn xamul fu mu jëm xam nga loolu moom bari na <laughs> maanaam ngoro xam nga moom li ci ne mooy fii moom li xew nii léegi kenn xamul lu doon nga xam ne moom day wax dañuy génn yéen fu ngeen génn jëm kenn xamu ko fi ne ngoro moom du dara lu may yow nga nga dem seeti soxna si te boo ko seetee ay waajuram ñëpp dañ fay ne nga waxtaan ak ay waajuram ngir ñu may la ko loolu mooy ngoro ngoro mooy dem nga ngay dem seeti ko di ko ñaan yi loolu nag mën ngaa waxtaan ak moom ci moom waaye fa ngay waxtaan ak moom bu leen wéet bu dee néeg it da ngeen ubbi bunt bi ubbi dindi rido bi ndax wéet la ñu bañ xam nga léegi itam waxtaan woowu jëru muy muy gudd bi seen ngeen di waxtaan loolu xam nga digle wuñ ko waxtaan gis lañ bëgg nga gis ko ba xam ne kii kat dégg nga maanaam bëgg nga ko mu bëgg la te jàpp nga ne man ngeen ànd may nañ la itam foofu rek la may nga xool xar kanam bi ak loxo yi nii waaye bul xool leneen léegi nag nga dem ñaan ñaan ñaan ay waajuram xam nga loolu jërul mu yàgg xam nga loolu mu mën naa am ci fukki fan daanaka mu nga ko moo tax amatub diir waaye nag gàttal gi moo ci gën ndax génn bu kenn xamul fu mu jëme loolu xam nga moom moom moom jërëjëf kii nee na cantaakoon nan la war a mel ab cantaakoon ab cantaakoon waa cantaakoon mooy li doon waxtaan rek mooy koo xam ni maanaam lay la muy njëkk ràññi ko mooy du doon ab jàmbatkat ab santkat du doon ab du waan du jàmbat lépp lu ñëw rek day gis wetu xéewal gi ci biir mbir moomee ndax mbir lu mu metti metti lu mu jafe-jafe am na wetu xéewal nattu yeeg yëpp rek da ci gis wetu xéewal loolu mooy la ci jitu léegi nag foo ko fekk itam ku bëgg yàlla lay doon koo xam ni jëfam yépp maanaam da ci jéem a sàkku ngërëmul yàlla foo ko fekk itam day yéene ñëpp jàmm day bëgg ñëpp itam ndax day xam ne ñii jaam yàlla lañ ni ma ko waxoon léegi xolam kiy joxe xéwal yi rek lay lay jan lool loolu mooy ab santkat. jërëjëf kii nee na bayit bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa indi ci biir bax baxa la bëgg ku ko ci dimbali mooy kafaytani rayha ba ma tajax jaxaa menal layaali fa shakartu ba jaxaa ah bay du man bay di ndax ñi mën naa cee dugg <laughs> xam nga bax baxawam daa mel ne xasida ak jihaad la ci géej géej la ko defee lam fa jànkoonteel nag ci ay ci ay nattu loolee ci lay sant suñu borom ko tax taala bu ma jumul sañ sëñ sëñ Maodo jërëjëf kii nee na xasida ak asiinu jamatan wal kaafu wa li raa i wal baa i wa huwa al baa u wa <laughs> nee na maanaa boobu ak ni ko sëriñ bi tëggee noonu waaw loolu nag xeetu sant yi ci lay tabbi Sëriñ Tuubaa xam nga nu ne sant na la yàlla santkat bi gën a mag moom mooy mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallaahu anhu <laughs> xam nga maanaam xeetu wayin woowu ci ci ci ci funoon dégg nga balaax yi ci la bokk ak muhasinaat yi badiiya yi nga xam ne xeet tëggin la woo xam ne man yaakaar naa la ko jiitu xaw ma amoon na ñu ko ñu ko ñu ko jiitoom déet mooy xaraf yi ci lay wax li mu bëgg a wax as siinu mujabatan mooy siin soo xam nañ ko tomb ci kaw wal kaafu kaafu mooy kaaf nga teg ci raa xam nga loolu mooy sukuru li raa i wal baa yi raa ak baa mooy rabbu mooy sukkur gi cant gi maa ngi koy maa ngi koy sant ar rabbu muy suñu borom tabaaraka taala <laughs> ar rabbu moom yi nag wa huwal baa u war raaw baa ak raa mooy albarru mooy ku baax ki nga xam ne tey mbaax yëpp ci moom la daje moom suñu borom noonu nag la defe xasida ga ba mu jeex xasida gu yéemu te te te <laughs> jërëjëf. Eh. kii ñi nga xam ne dañuy ñaan wax ni yal na la sëriñ bi defal nangam ndax loolu mënees na koo wax wala déet. <laughs> waaw loolu mooy li ma doon wax léegi rek xam nga maanaam yow sa xarit bii nii léeg nga ne sëñ Baba ah fan yi dëkk bi naqar na 1000 francs de bon seen nga dimbali ma ci wala 5000 <laughs> dimbali ma ci 5000 wala 1000 francs léeg nga ñaan ko sa baay léeg nga ñaan ko sa yaay. dégg nga ginnaaw gaa ñaan sañ baaba 1000 francs mu wër la 1000 francs yi moom moom moomu ko yàllaa ko ko wërsëg de ndax alal jëpp yàllaa ko moom sëñ Tuubaa li ko yàlla jox daa bari xéewalam yooyu ko yàlla jox ci lañ koy ñaan mu mayaat nu ci <laughs> xam nga loolu dara nekku ci loolu maanaam dugal maanaam du dugal mukk ci sirk leen nag am na ci ngir ma xam nga boo waxee nii dem rek mën a jàpp na waaye ci euh, saxiixu saxiixu imam muslim saxiixu imam muslim rabiatu bnu kaab al aslami ab saxaabi la dafa bokkoon ci ñi doon wattu yonente bi sallallahu alayhi wa di ko garde ba aaya bi wàcc mooy wallahu yaasimuka min annaasi bi yërndu ci ci ci xayma bi ne ko mën ngeen a dem ndax yàlla aar na ma foofee nag rabia yonente bi dana ko salni salni mooy riwaayatu abu daawuda salni mooy ñaan ma rabiatu bnu bu nekkoo ko asaluka loolu mi ngi ci mi ngi ci muslim asaluka murafaqataka fil jannati mooy maa ngi lay ñaan ëllëg ca aljana nu bokk fa dëkk maa yow foo nekk ma nekk fa asaluka baat bu rëy nga noonu yonte bi lay waxal yonte bi wax ko ne ko yow ci sirka ne nangam déet dana ko aini ala dalika bi kasrati sujud dimbalee ma ci di naafila naafila gu bari rabia xam na ne yonente bi du yàlla jaamub yàlla la moo tax lu mu mën a wax ci yonte bi may maag nangam yonte bi sax moo ne ko sal nii loolu moo gën a leer moom mooy riwaayatu Abu Daawud sal nii mooy ñaan ma loolu gars yi duñ ko waxtaane xam naa ne waaye loolu buñ ko doon wax lu bari rek ñoo xam ne kon loolu jafe-jafe nekku ci mooy Sëriñ Tuubaa maanaam maanaam ab sabab la ci sabab yi sabab bu dëgër nag te am solo ci sab asbab yi moo tax li nuy sàkku ci moom ak li ñuy def loolu mën noo génn ci ci diina ji donte nag li gën a maanaam murit bu ne moom war nay sàmm Sëriñ Tuubaa daana wax ne moytu leen yàq sama dara ndax ne xam ne ngeen lu ñuy yàqe sama dara mooy nga jóge fi man am lu ñuy xebat ci yow bépp baat boo xam ne boo ko waxee mën naa tax nit xebat sëriñ bi mbaa mu wax ci moom lu mu wërta wax moytul baat booba yow boo nekkee ci ci kii waxal ci lii ñëpp wax rek ñaan ñaan moom yàlla képp lañ koy def ñaanal yàlla léegi asbaab yi nga nga teg ko su suuf nag boo duggee ca ca barabu Sëriñ Tuubaa ba <laughs> yaa yàgg moom kese nga ne ko sëñ bi maanaam ñaanal ma sun borom xam nga loolu kenn ayewu ko xanaa ñaanal ma sun borom mu dimbali ma ci nangam nangam loolu boo koy def mu daal la ko jox <laughs> ndax barab boobu rawdatul min riyadil janna la ah, al qabru imma rawdatul min riyad aw xufratu min min dërub àjjana la ci dëri àjjana yi àjjana suñu borom waxoon na ne ku fa ne saraax loo ma laaj ma jox la ko lahum ma yashaa'uuna fiiha moo tax foofu moom loo fa laaj yàlla jox la ko Ah, bërëbu Sëñ Tuubaa boobee mooy mooy dër bi dër bu dër bu naat la ci dëri àjjana yi ab dog la ci ci ci àjjana foofu nag boo fa jaaree moo tax bul màggali mukk dem di wër ci mbedd yooyu rek da ngay jëkkee foofee ci sëñ ba siyaar ko dégg nga mi nga <laughs> ko sëñ <laughs> bi kii day laaj xam naa tontu nga ko ba noppi sax mu ne mbooleem xeetu cant yi ban moo ci ëpp doole xeetu cant yi waaw nee na ah, cant xol moo maa ngi doon wax nag maanaam xawaasul xawaas seenu cant cant xol la dernière question bi kii nee na day gis weeru safar bu teroo mm. bay faal yi ni nuy soot nga xam ni dañuy liggéey di miiras seen bopp di joxe seen alal màggal bu yegsee itam ñu jël seen alal yëpp def ko ci nee na lan mooy melow bay ak lan mooy dëgg-dëgg bay faal bay faal de mooy koo xam daa seey ci bëgg kooku mooy bay faal koo ne moom daa seey ci bëgg daa ne bëggatul leneen <clears throat> lu may yàlla moo tax Baye Fall nag yombut <laughs> ndax Baye Fall mooy dëgg-dëgg ab murit te suñ ba jaxate waxoon na ne murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man ab murit laa te doo ab murit murit dëgg day dee te déegul asal li dee metti metti jotul ak murit ginnaaw dee moom moo gën a metti ak murit xam nga moo la xamal murit kon moom <laughs> yombut Baay Faal nag ca dëgg-dëgg cosaan la moom mooy anamuk tërbiya ak Sëñ Tuubaa googee mu daa tërbiya nga xam ne dañuy dëddu àdduna te te daraja seen daraja dañ koy sippi te waxtu wu ne dañuy nekk ci ndigalul sëriñ bi duñ ko génn mukk dëkk itam ci jaamu yàlla ak tudd ko ak tudd yàlla loolee nag ka mooy murid saadex moom boo xam ne xëy na maam Cheikh Ibrahima Fall day jëmm joo xam ne suñu borom a ko terale maanaam melo woowu ñu askoon ko ci moom waaye mboolem ñi sëñ ba njëkkoon a yar ci ci melo tërbiye googe ci lañ nekkoon kooke nag mooy koo xam ne mën naa jékki-jékki mboolem li mu am ci kaw suuf mu joxe ko addiye Sëñ Tuubaa dellu ci sero loolu moom ba léegi wax dëgg yàlla suñu mbokki Baay rek ci la des waaye nag lii nag du Baay Faal kese ñëpp koy def murit yëpp nag ñooy ñooy ñooy ñooy kii ci màggal gi màggal gi moom murit yëpp a ci taxaw <laughs> jërëjëf ñu ngi sant bu baax ci tawféex bi nga xam ne moom la sëriñ bi defal te jariñu naan lool wax dëgg yàlla xam naa dañuy jox sëriñ Saliou Touré kàddu gi su ko defee mu yeggale li ci des insha allahu